mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain incha allah ñi ngi war a jël tey suñu aaye bu jëkk ci suuratul mujaadala muy qad sami allah gannaaw ba ñu sante suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gém ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam fas yéene jàng ab téeréem loolee bokk ci jaamu yàlla yu kawe yu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaax ci ñu koy fekke fekke ga day bu ko yàlla nangoo dana la jural dal ga muy wàcce ci yow jural la yërmaande ba mu lay yiire ak malaakaam yi lay wër ak tudd gam leen di tudd ca malaaka yu kaye fa ne ca moom yal na yàlla boole ñu nangul ak it mboolem ña nga xam ne ñoo koy déglu en direct ak ña ko nar a déglu yépp ca fayal ñu ñi dox suñu diggante ak ñoom muy suñu télévision bi di Islam TV ak la nga xam ne mooy surtout xam sa diine ba ak yeneen site yi aju ca jàkka ji mi ngi noonu falilahi alhamd xam naa lu jiitu it ñi ngi ñaanal ñoo xam ne lu bari ci ndaw ñi tey bàyyiwuñ ci xel li xewoon démb moom mboolem ndawi Sénégal bàyyi nañ ci xel Sénégal demoon na football yi gagné fa 2-0 waaye mbokk xam leen ne démb tamit suñu armée Sénégal ba nga xam ne ñoo basé ca Gambie ngir aaral ñu suñu réew ca ña nga xam ne ñooy taal fitna sàmmal ñu suñu économie ca ñay yàq àll ba démb xeex nañu ak rebelle ya fa nekk ba yàlla dogal ñaar ci ñoom faatu ca ñu am juróom-ñeent yoo xam ne yóbbu nañ leen làq leen loolu it ngeen bàyyi ci xel mbokk ñooñu ñooy jàmbaar ñooñu ñoo jara ñaanal ñooñu ñoo amal njëriñ askan wi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yéen la jeunesse su ko defee ñooñu ca faatu yal na yàlla jéggal leen ca yërëm leen ca wuutu leen ci seen njaboot ñooñu nga xam ne it dañ leen jàpp ca fañ fa ñu nekk ñun ñëpp lañ fa demaloon yal na yàlla xettali leen delloo leen seenu njaboot ci jàmm kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنبرم مني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دقنا يلا دي كادو كنغا خمني ميغي نيك دي دغ سانتي اك يو ca la nga xamee ne nii moom mooy borom këram ba wa tashtaki ma nga nekk di doon koo xam ne ma ngay jàmbat tiisam wa ilallahi jëme ko ci yàlla wallahu yasma'u tahawurakuma yàlla day moom ma ngay dégg seen jokkalante ba ngeen di jokkalante ci ay kaddu inna allaha samiun basir sa borom yàlla mooy dégg lépp ca mooy gis lépp allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ñi nga xam ne ñoom ñooy gannaawale seen soxna ya di ko yemele ak seen gannaaw ak yaay ca seen soxna ya ma hunna ummahatihim ñooñu day nekkuñu seen yaay in ummahatuhum illa allai waladnahum seen yaay daal nekkul lu dul ña nga xam ne ñoo leen wasin wa innahum la yaquluuna munkaram min alqawli wa zuura doonte ne ñoom day ña ngay wax loo xam ne lu ñuy sib la ci ay kat ci ay kaddu ak loo xam ne ak duural la wa inna allaha la afuwun gafuur sa borom yàlla day mooy kay jéggale mooy kay bale walazina yuzahiruuna min nisaihim ña nga xam ne day ñooy nekk di gannaawale seen soxna ya di ko yemale ak seen yaay suma yauduuna lima qaalu gannaaw ba ñan ñu daal di dellu riccu lañ waxoon fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa nañ goreel jaam jiitu ñuy nekk di laalante ci ab lal zalikum tu'azuna bi lii day mbir la bu ñu leen di xuppe wallahu bima ta'maluna xabir seen borom yàlla day li ngeen di def mooy ku ci ñàkk kumpa jalla wa ala bokk julit diine l'islam yow julit da ngay war a xam ni melul comme ñi ka ñu bari jàppe lan mooy diine ah man damay julli damay woor damay zakat wala damay dem makka mbokk loolu mooy pilier diine ji waaye diine aw dundin la lépp loo xam ne daa aju ci sa diine dafa aju sa dund diine lislaam dafa ñëw ci teg la ca yoon ba gën a jub looloo tax mu waxe lu bari ci diggante way dencante yi mu amoon benn aada bu ñaaw boo xam ne tasaaroo na ci adduna bi noo nit la amee woon ca arabiya mooy da ngay gis ko mere soxnaam rek na ko bis niki tey yemale naa la ak sama yaay ji ma jur loolu soo ko masaan wax jeex na dootu leen ànd ci sëy ba faw ndax xam ngeen ne yaay ji la jur moom mënoo sëy ak moom ba faw looli daloon benn waay bu ñuy wax Aws ibnu Samit mu daal di mere soxnaam sa tuddoon xawlatu bintu Sa'laba ne ko yemele naa la ak sama yaay ah loole mu wax ko ca bëccëg ba bañ demee ba guddi mu daal di wëlbati ko waat bëgg a réccu loolu mu defoon soxna si na ko déedéet abadan daa di forcé ko comme kay dafa góor ga daa mage woon ba mucc ci moom te it muy wareefu bépp jigéen sa néeg la nga fay siq ak sa borom kër lépp lum la ca woolu xaraam amoo droit di ko wuy si war nga ca xeex ak moom ba lott ca ki nga xam ne dafa bëgg ànd ak yow ca setoo ci dereti wasin setoo ci dereti règle wala góor ñu sabewu bëgg ànd ak yow fa góor jigéen ñe di ànde yooyu yépp yow waroo ko nangul sa borom kër soxna si ba mu xëyee suba daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah suma borom kër de lii la ma wax yonent bi ne ko ah kon de xawma ci dudul aram nga ko ba faw bi loolu amee soxna si ne ko déet yu mu yàlla yónni man kii bi may godo gu ndaw la ma jël dem naa ba la ma waroon a jur yépp moom laa ko jural su ma demee yóbbu xale yi xale yi daan doon loo xame ni nii ah ñuy xiif lañu ndax oomalu ma leen yore su ma leen fi bàyyee ñu tumoranke yonent bi ne ko ah waaye man day dëgg-dëgg beneen atte xawma ko ci loolu fa ñu toog ci néeg yonent bi di wax sallallahu alayhi wa sallam te itamit ngeen bàyyi ci xel mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na ci fin dundam daanaka buur la woon empereur la woon jiite gox yu bari waaye teewul woon ñépp amoon jokkoo ci moom ba arab lim gën a doyadil mooy jaam waxumaa nag jaam bu ñuul ba jaam bu ñuul bu jigéen da daan ñëw ne yonent bi la soxla taxaw ak moom yóbbu ko ci wax ko aajoom kenn daawu ko rang sallallahu alayhi wa sallam lu ko waral mooy juróomi yoon dana génn jiite mbooloo mi ku feebar mu seeti la lu xew mu dem luñ koy range koo gis ñu koy rang rek parce que moo jafel boppam am déet kenn daawu ko rang sallallahu alayhi wa sallam soxna si foofu mu nekk di dàggasante ak moom ca la yàlla subhanahu wa taala wàcc jibril alayhi salaam muy wane ne mbokk diine ji mooy diine góor ak jigéen suñu borom yàlla ni mu fonke góor la fonke jigéen bi mu wàccee jibril wàcceel ko bopp mu indil ko bopp suuratul mujaadala te it mbokk xam leen ni alquran la ca ëpp suñu borom da ko wutal li ñuy tudde asbaabu nuzul yàlla wàcc na ko benn yoon ci asamaanu benneel gannaaw ba nag circonstance bu am aaya ya dëppoog loolu yàlla wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la wàcce suratul mujadala di saar bu yéeme ci saare alquran yi ñaar fukki aaya la ak ñaar aaya bu nekk turu yàlla ñëw na ca muy benn saar ci alquran téeméeri saar fukk ak ñeent mujadala rek mooy saar bi nga xam ne mboolem aaya ya ca rot aaya bu ne turu yàlla ma nga ca mi ngi noonu bi loolu amee suñu borom yàlla daa di commencé ne ah yàlla day dégg na kàddug ki nga xam ne mi ngi ñëw di dàggasanteeg yow ci soxnaam ci ci borom këram muy muy xawla ca it moom mi ngi jàmbat jëm ci yàlla te ngeen gis it sahabatul kiram góor ak jigéen ni ñu xàmmee woon yonent yàlla ak seen borom ndax xam nañ ne yonent yàlla bi jot li dong ko war waaye borom dogal yi mooy borom bi jalla wa ala moo tax ndaw si tashtaki ila allah yàlla la doon jàmbat mbir ba comme la yanqub waxoon ba ko doomam yi di yedd ca ba muy wax mbir yusuf innama ashku basti wa huzni ila allah man li ngeen ma dégg may wax yépp jàmbatu mu leen ko yàlla dong laa koy jàmbat gis ngeen suñu borom yàlla mu ne maa ngi dégg la ngeen di wax ndax yàlla mooy dégg lépp mooy gis lépp suñu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne cey soxna si de ba muy wax ak yonent bi ca côté néeg bee maa ngi ci beneen côté bi li muy wax xawma ci dara waaye yàlla moom mu ne dégg na ko loolu suñu borom tëje ne mooy dégg lépp mooy xam lépp e waaye nga la waaye xamal ne it fu nit nekk di wax la muy wax yàlla subhanahu wa taala dégg na ko fu nit nekk yàllaa ngi jàkkaarloog moom biir sous-marin ya biir montagne ya ko asamaan foo mën a nekk ci lëndëm ya gën a tar suñu borom yàlla mi ngi lay gis te mi ngi dégg li ngay wax yépp jàll wa ala muy wañe ne moom dong yooyu ñu koy jaamu di ko yaakaar ca la doog a ñëw nag ci atte bi mu ne ñi nga xam ne nii day dañuy mer jàkkaarloog seen soxna na ko yemale naa la ak sama yaay ñooñee day nañu xam ne sa soxna moom du sa yaay abadan sa yaay mooy ki la wasin te loolu it mi ngi noonu sa yaay mooy ki la wasin ñoom kay dañuy wax lu bon ci ay wax dañuy waxit loo xam ne duural la te loolu mbokk julit même bu doon tene ne yow dogu nga ci effectivement soxna si yemele nga ko ak sa yaay fësatoo ànd ak moom teewul wax nga wax ju bon waxu bakkaar wax bu yàlla bëggul ni ngi noonu te it mbokk nañu xam ne ki ne sama soxna yemele naa la ak sama yaay moo ki ne ko yemele naa la ak sama doom bu jigéen ñoo yem yemele naa la ak sama sœur ñoo yem yemele naa la ak sama bàjjen ñoo yem tant que ka nga yemeleel mahram la ku mel noonu da ngay gis ni wax nga lu ñaaw ca atte yi di ñëw day dal sa kaw borom boobu nag subhanahu wa taala ni doonte ne ne yàlla moom mooy alaafu gafuur alaafu mooy ka nga xam ne day jéggale daanaka bu doon moom rek day yóbbaale gafuur gafuur it mooy bale day yóbbaale alaafu waaye bu ñu àndee alaafu day gën a jéng ci gàttan lu ya nit ñi gàttan lu ci jaamu yàlla julli yaa koor yaa ngi deme noonu gafuur nag mooy gàttan lu ya ca bakkaar ya ñuy def suñu borom jéggal na leen seen gàttan lu gi baal na leen seeni bakkaar jalla wa ala ca lay doog a ñëw nag mu ne gis ngeen ñii nga xam ne dañuy yemele seen soxna yi ak seen yaay gannaaw ba nag ñu delluwaat bëgg àndaat ak moom cib lal aka ñoo bon la ñuy def yaag sama yaay yem ba pare wëlbatu bëgg àndaat ak moom suñu borom yàlla nag ne loolu balaa am na nga goreel benn jaam na nga goreel jaam ca it quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñi wax wax ju bon jooje yàlla dana leen nattu ñu bëgg àndaat ak soxna si ci li ma yàlla xamal xamal na ma ci ñett ñoo xam ne ku nekk wax na loolu soxnaam ku nekk dellu na gannaaw àndaat ak moom mi ngi noonu borom bi jàll wa aadaane na goreel jaam rawante ne ne boo demoon ci occidentaux yi ak suñu intellectuels yi xamul lu xew dañaan l'islam dafa saxal jaam mbokk l'islam dafa ñëw fekk jaam nekk benn réalité ci société bi islam ñu ñuy xeexal ñu jàpp ci ñoom jaam ñoom ñu jàpp ci ñoom jaam bu xëyoon ne jaam yépp nañ gore jaam yi ñooy jëkk am problème mi ngi mel ne tey li ñu tuddee l'esclavage des temps modernes tey ji da ngay gis ñoo xam ne liggéey ya ñuy liggéey mu lañ cay fayee ko matul sax ceeru lañu soxla ca sañu ñoo bañ a xëy sañu ñoo bañ a liggéey tey buñ ne woon mboolem kuy jël doomu aadama bu mu ko fay mooy de cent mille wala cent cinquante mille ku mel noonu ouvrier yi ndaw yi ñoo jëkk am problème loolu tax islam indi benn politique boo xam ne jaam yi dañ fi jóge ca soulèvement du am coow du am ku fi wax sa soxna yemale naa la ak sama yaay bala nga ànd ak moom goreel jaam ku ferey nit na nga goreel jaam mi ngi noonu jaam bu bëgg a gorewu bindante leen ak moom ñaaxaatee ci ni ay yéen nit ñi kaay ma wax leen yoon bi gën a gaaw jëme ci àjjana ñun waaw mu ne fakku raqaba raqaba mooy goreel leen jaam ila axiri loolee ngir jaam dana fi jóge ca fitna du am kon fokk mu goreel jaam jiitu ñuy ànd borom bi jàll wala nag ne lii moom laa di laa leen di xuppee ca xam leen ne lay xew ci ko lal ba boo bàyyi yëgul xarit yëgul kenn yëgul it man yàlla man dara ump ma mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينادي نُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni faman lam yajid ku amul jam boo goreel fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayn na woor ñaari weer yu tegaloo min qabli an yatamassa jiitu ñuy laalante ca kaw lal ba faman lam yastati' ku amul kattan ci woor ñaari weer fa it'aamu sittiina miskina kon na leel juróom benn fukki miskin dhalika li tu'minu billahi wa rasuli lii de ngiree ngeen gëm yàlla ak yonentam wa tilka hududullah lii de mooy la nga xam ne muy rëddi yàlla wa lil kafirina azabun alim te dana ñel yéefir yu mbugal mu tar inna lazina yuhadduna allaha wa rasula ña nga xam ne nii day ñoom ñooy noonoog yàlla ak yonentam yàlla rëdd jaar fee ñoom ñu rëdd jaar fële kobitu kama kobita allazina min qablihim ñooñu day dëpp nañu leen ay toroxal nañu leen nañ toroxale woon ña leen fi jiite woon ña leen fi jiitu woon wa qad anzalna ayatin bayinat te ñun day wàcc nañ aaya yu leer nañ walil kafirina azabun muhin dana ñeel yéeféer yi mbugal mu leen di toroxal yawma yab'asuhum allahu jami'a bis bam leen di dekkal yàlla mboolo seen fa yunabbi'uhum bima amilu dana leen xabaare lépp luñ nekkoon di ko jëf ahsaahu allahu wa nasu mboolem lañ doon def yàlla peek na ko doonte ne ñoom fàtte nañu ko wallahu ala kulli shay'in shahid doonte ne yàlla bépp mbir mooy aji ka koy seede mi ngi noonu mbokk suñu boroom ni te ne soxnaam yemale naa la ak sama yaay mu wër jaam bu ma goreel amu ko na tegale ñaari weer woor ko avant muy ànd ak moom ci lal su wóoroon juróom fukki fan dagg ko ci coobareem dafay commencé waat à zéro ñaari weer yooyu lenn dong nga mën a tax mu dagg ko mooy la nga xam ne bu ko daboon ci kooruk farata dana ko mën a dagg waaye bu dul loolu amu ci droit suñ borom yàlla nag ni koo xam ne amul kattan ci ñaari weer yooyu su boobaa na xool juróom benn fukki miskin mu leel leen miskin yooyu nuñ leen di leele bu la neexoon woo juróom benn fukki miskin benn yoon wala bés bu nekk nga woo fukk may leen ñu lekk ba suur loolu mbokk mooy lele ga wala nga jël ku nekk culëb ceeb jox ko mu dem lii mooy la ñuy leeli la nga xam ne muy miskin am na ci ñuy wax naan da nga koy woo jox ko ndékkeeg añ ak reer ba ko loolu ay wax la am na ñu koy bind waaye la doon cosaan ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak doxaniilam mooy loolu ma leen wax imma nga woo leen jox leen ñu lekk ba suur wala ku ne nga jox ko la nga xam ne moom mooy culëb ceeb loolee da ngay gis mooy la ñuy leeli miskin ndax am na ñu ne liibar ñii ne ñaari kilo ñii ne kilo la ci gën a digg doomu mooy kilo ceeb mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne nag lii mooy ñi nga xame ni nii dana ñeel ki gëm yàlla gëm alaxira ndax mbokk mbir mi it mbiru ngëm la daanaka ñooñu ma leen doon wax xam leen ñu def ziyaar ak seen soxna kenn ci ñoom jàppuloo ne mën naa woor ñaari weer yu tegaloo ñoom ñëpp dañoo dem jënd ab ceeb sarxe ko waaye mbokk yàlla la gën a xam yàlla mi la bind moo gën a xam ndax mën ngaa wooro mënoo woor te bu dee mën ngaa woor lele ga ngay lele du la jëriñ dara moo tax borom bi ne fa man lam yastati ku mënul na leel juróomeel fukki miskin borom bi nag nee ne lii laa rëdd yéeféer yi mbugal mo tar mi ngi leen di ñeel ñooñu nga xam ne yàlla dafa rëdd jaar nii teg ca ab yonentam ñoom ñu rëdd contraire ba borom bi nag ñii day dañ leen toroxal doon ci àdduna wala alaxira wala ñaar yépp doonte ne borom bi mu ni samay aaya leer na nañ ñi ñeel képp koo xam ne bëgg naa jaar yoonu njub amma yéeféer ya mbugal mu leen di toroxal mi ngi leen di xaar bis bi nga xam ne yàlla dana leen dekkal mboole seen dana leen xabaare lépp loo xam ne jëfoon nañ ko te loolu it mbokk julit yàlla mi ngi koy tëkkoo yéeféer yi waaye ngalawaay yow julit it xamal ni bis bi la yàlla di dekkal yàlla dana la xabaare lépp loo xam ne defoon nga ko doonte ni ni suñu borom nee na fàtte nañu loolu waaye yàlla moom mi ngi ko peeg te loolu it ngalawaay yow julit moytul di fàtte say njombe say bakkaar dee ka fàttelu ko di ko tuub looloo tax borom xam-xam yi di wax ni bakkaar lay dina tabbal nit ki aljanna ca mooy fu ca saxal demee nga tuub ko toroxlu ci yàlla lam lay jural mën na laa jural ngërëmam mi ngi mel ne rek tuyaa ba ju rëy mën nga koo def di ko fàttelu ko di ko bakkoo ba loolee alag la looloo tax ba yonent yi alayhim salaam keroog bu ñu demee àllaaxira ñuy sakku kan mooy dem ñaan yàlla mu ñëw atte jaam yi ba demee ci yonent yàlla aadam def ne man loolu day ñemewuma ko ndax man maa lekkoon garab ga nuux nag mu ne man maa laajoon yàlla loo xam ne waruma ko koo laaj ci sama doom ja Muusa Muusa man man maa fara yoon nit mi ngi noonu Ibrahim Ibrahima mu ne man man day maa fenoon sama xeet ba loolee mbokk yonent bi alayhi salaam mi ngi ñu koy nettali ngir yow julitit rëcc rëcc yi yàlla teg ci yow na am jortul ne bu rafet ne yàlla baal na la ko waaye nag dee ko bàyyi xel fu ci sa xel demee nga jéggulu yàlla jalla wa ala borom boobu nee na moom fàttewul dara donte ne yàlla mu ne lépp it seede naa ko la ngay def fu ngeen ko mën a defee suñu borom mu ne fekke naa ko maa ngi ko peeg ci duma ko fàtte yéen yéenay fàtte mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير بارك الله فيكم suñu borom jalla wa ala mu ni alam tara ama ndax gisoo anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ne yàlla de moom xam na la nekk ca biir asamaan ya ak li nekk ci biir suuf ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum du nekk mukk ci ab deeyoo ñett lu dul moo leen ñeenteel wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala juróom lu dul moo leen juróom benneel wala adna min zalika wala aksar du doon lu gën a néew loolu wala lu gën a bëri illa huwa ma'ahum aynama kaanu lu dul mi ngi nekk ànd ak ñoom fu ñu mën a nekk summa yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama gannaaw ba mu xabaare leen la nga xam ne ñoo ngi koy jëf yawma alqiyama inna allaha bi kulli shay'in alim sa borom yàlla day bépp mbir mooy aji ka ka xam alam tara ila allazina nuhu anin najwa moo tax gisoo jëm ci ñi nga xam ne dañ leen tere woon ñu nekk di deeyoo suma yauduuna lima nuhu anhu gannaaw ba ñu dellu ca la nga xam ne tere woon nañu leen ko wa yatanajawna bil ismi wal udwan da ngay nekk di deeyoo ci bakkaar ak noonu wa ma'siyati rasul ak may gañuy may yonente ba wa ida jaa'uuka hayyawka bima lam yuhayyika bihi allah buñ la dikkee lay day ña nga lay nuyoo ci noo xam ne yàlla nuyoo wula ko wa yaquluuna fi anfusihim gannaa ba ñuy wax ci seen bakkan ya lawla yu'azzibuna allahu bima naqul ma ñun lu tee woon yàlla mbugal ñu ci li ñuy wax hasbuhum jahannamu yaslawnaha dana leen doy sawara ba nga xam ne daañ fa dugg beelu fa fa bi'sal masir aka bon la nga xam ne mooy mujjug sawara mi ngi noonu mbokk julit suñu borom mu ne xam leen ne yàlla day xam na lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf heure bu ay nit dajee di réunion na doon dañoo nekk ñett wala ñeent wala juróom wala lu gën a néew loolu muy ñaar wala lu ko ëpp amul fu mu yem suñu borom mu ne maa ngi ànd ak ñoom fu ñu mën a nekk loolee mbokk suñu borom ne fu ñu mën a nekk la xewoon démb ay doomu aadama mënuñoo deeyoo lu dul dañoo toog waaye tey jii mën ngaa nekk Amérique di deeyoo ku nekk Sénégal mën ngaa nekk fii di deeyoo ku nekk Moscou loolee suñu borom mu ne fu ngeen mën a nekk la ngeen di wax man yàlla xam naa ko looli mi ngi noonu su ko defee heure bu ngeen toogee di deeyoo di waxtaan su fa ñetti nekkee xam leen ne déedéet yàlla ngi ñuy ñeenteel de dañuy déglu dañuy gis donte ne aaya yi bokk na ña nga xam ne ñooy taalibay jaham a ibnu safwan nga xam ne moo jëkk a dugal ci diine lislaam na yàlla ngi fépp aaya yi bokk na ci la ñuy layoo te mooy yàlla mi ngi nekk ak ñëpp mi ngi fépp déedéet mbokk arrahman ala al arsh istawa suñu borom yàlla ma nga ci kaw arsham ba waaye mooy ki nga xamee ni nii doomu aadama yi ak mbindaafan yi yëpp fu ñu mën a nekk la ñuy wax dara ump ko ci ci dégg ga ak gis ga ak ci xam-xamam ba ak kattanam ba jalla wa ala léegi nag nee nañ buñ ñëwee yawmal qiyaama ñoom ñëpp dana leen dajalawaat ay yow diw ak diw ak diw sangam day yéen rajo woon place sangam doon fa wax nangam ak i nangam ay waay lañ doon wax yàlla na fekk mu baax looloo tax ba képp ku la woo cib diyo cib réunion ci lu mën a doon ngalawaay na fekk ne loo xam ne ngërëmal yàlla mi ngi ci suñ borom yàlla nag nee na laa xayra fi kasirin min najwaahum doomu aadama yi li ëpp la ñuy daje benn njëriñ amu ci illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islahin bayna annas lu dul kay digle ñu génne sarax wala digle ak njëkk wala yéwénal diggante nit ñi borom boobu kon loolu la wax léegi nag bokkoon na yahud yi dañ daan dem ca yoonu madina ya toog ca yoon wa bu ñu séenee benn jullit di ñëw ñu daal di koy joxoñ daal di tàppante daal di ree xam ngeen bokk doomu aadama ku ko def loolu mu déranger ko loolee yonent bi alayhi salaam tere leen ko waaye taxul ñu bàyyi ko suñu borom mu ne xoolal ñii nga xam ni tere woon nañ leen seen déeyoo yooyu teewul ña nga sax yu déeyoo noonoo goo xam ne nii dañ koo yoral yàlla ko bu yonentam suñu masal ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luñ ko daan wax mooy assalaamu aleyk assaam ci seen làng ñoom mooy dee ewaay yàlla na nga deewaay gis ngeen te yow miy déglu da ngay jàpp ne asalaamaaleykum la ñuy wax am déet asalaamaaleykum loolu yal na nga deewaay yonent bi alayhi salaam ne leen wa aleykum ak yéen tamit bis fekk na fa yaay Aïcha comme xam na la ñuy wax bañ ne yonent bi asalaamaaleykum mi ngi noonu yonent Aïcha radiyallahu anha tontu leen ne wa aleykum asalaam abna al qiradati wal xanaazir deeka yéen rek la ñeel doomi mbaam xuux yeeg golo yi yonent bi alayhi salaam ne ko dalal Aïcha mu ne ko xanaa déggoo lu ñu wax mu ne ko xanaa déggoo liñ ma li ma leen tontu dañ maa ñaanal yàlla alkaange seen ñaan yàlla du ko nangu man wax naa leen aleykum sama ñaan yàlla dana ko nangu gis ngeen léegi nag ñoom buñ delloo seen kër ne ah ngeen jàpp ne kii yonent yàlla la ñun ñi ngi nekk di ko rëbb un xamu ci dara de un te ba pare yàlla lan la ñu yàlla def bañ ko dalee rëbb ba tey lu ñu yàlla def gis ngeen loola yuazibuna allah bi ma naqul suñu borom ne li ma leen nar a def mooy jahannama doy na leen pay ca aka bon ak mujj te loolu it léegi-léeg mën a xay doomu aadama da ngay sax ci njaaloo gi carte gi tooñ nit ñi lekk riba say mbir di gën a baax ci zahir ci yow nga jàpp ne loolu du dara fekk ne lépp mi ngi dajaloo di la xaar imma mu këpp ci yow ci àdduna wala mu xaar la la nga xam ne mooy yowmal qiyaama mi ngi noonu Cheikh Ousmane
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير جزاكم الله خيرا suñu borom jalla wa ala mu ne ya ayuha alladhina amanu e yeen ñi nga xam ne da ngeen a gëm idha tanajaytum su ngeen demee bay deeyoo fala tatanaajaw bil ismi wal udwaani wa ma'siyati rasul bu leen deeyoo mukk luy jur bakkaar ak noonoo ak moy yeneen taba wa tanaajaw bil birri wa taqwa waaye dee leen deeyoo ci luy jur njekk ak ragal yàlla wattaqu llaha alladi ilayhi tuhsharuun ragal leen yàlla mi nga xam ne bis dañ leen génne seen bàmmeel ya dajala leen ci kanamam innama najwa min alcheytaani li yaxzuna alladina amanu lii di deeyoo ca cheytaani la jóge ngiree mu cay tiisu ñi nga xam ne dañoo gëm walaysa bi darrihim cheyan illa bi iznillah doonte ne nekkul di leen lor ci loolu ci dara lu dul ci ndigalu yàlla wa ala allahi falyatawakkal almuminuun te ci yàlla dong day lay war a wékku mboolem ñi gëm yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم buñ leen waxee yaatalal leen ci tooguwaay yi fa ngeen di toogee yaatalante leen kon de yàlla dana leen yaatalal wa ida qiilun shuzzu fanshuzzu buñ leen waxee jóg leen ngalawaay jóg leen yarfa illahu alladina amanu minkum yàlla de dina yëkkati ña gëm ci yéen walladina utul ilma darajat ak ña nga xam ne dañoo gë dañoo yor xam-xam ba la nga xamee ni nii moom mooy daraja yu kawe ya wallahu bima taamaluna xabir te yàlla day li ngeen di jëf ko ca ñàkk kompala mbokk suñu boroom def na yéen julit ñi su ngeen demee bay nekk di deeyoo di réunion bu leen réunion mukk lu jëm ci loo xam ne day jur ak noonu loole ak lu leen mën a boole ci mbir àdduna julit war caa bàyyi xel bépp réunion boo xam ne la ñuy waajal bakkaar la yow julit amoo droit dem di bokk ci réunion boobee waaye nag suñu borom mu ne dee leen daja nag di réunion di diisoo ci lépp loo xam ne njëkk la loo xam ne nii tabax jàkka yaag daara yaag dimbali nit ñaag lu demee noonu ak lépp loo xam ne day jur ak ragal yàlla ba bakkaar jóge ci dëkk bi ngalla waay def leen ko ca ngeen ragal yàlla xam ne lu mu yàgg-yàgg dañ leen di dajale ci kanamam te loolu it mbokk mooy la nga xam ne mooy jajji julit julit boo xamee ne lu mu yàgg-yàgg danaa mas a taxaw ci sama kanamu boroom mboolem lu mu mas a def ci kaw suuf ma rendre ca compte loolee dana ko delloo gannaaw ci lu bari borom bi mu ne nag li ëpp ci dee yooyu ci seytaane la jógee ngir wàcce tiis ca ña nga xam ne dañoo gëm te bokk na déeyoo yi gën a bon ñay dem di déeyoo ak njabarkat ya ñay dem di déeyoo ak seetkat ya galawaay xam leen ni bu sol sa dal dem ca ab seetkat déeyoo ko moom loolee dana la xañ ñeen fukki fan kenn du nangu say julli bu la waxee nga gëm dalay weddiloo alquran kay déeyoog njabarkat ba ngiree mu njabaral ko loolee mbokk ci musiba yi alag doomu aadama ca la bokk amma yow julit fu ay nit nekk di deeyoo ñaar la ñoom ñaari téeméer sa yoon bu mu nekk ci loolu xamal ne mënuñoo deeyoo ba lor la lu dul yàlla tudd ci yow looloo tax lu mel noonu la yàlla waxoon ca njabar ga wa ma hum bi daarina min ahadin illa bi iznillah duñu mën la fexe lor lu dul yàlla tudd ci yow yow fexeel wékku ci yàlla sa boroom wékkul ci yàlla kese donte ni wékku ci yàlla bokkul ak ni ko Sénégal yi jàppee da ngay gis caamin boo xam ne conca la ba poqotaan ba lépp ay gàllaaj ca nekk ndigg la la ca nekk bu ñu koy yoon xale du dem yaa ngi dégg bu ko defee ñu naa waaw wékku naa ci yàlla waaye lii sabab la déedéet mbokk ju de ki wékku ci yàlla mooy ka nga xam ne dafay doyloo xam ne heure bu ne ya allah ya rabb yàlla nga koy dégg mu doyloo ay ñaanam doyloo ay muslaayam amma ki takk ay gàllaaj kooku ci gàllaaj ga la wékku bitelee ci suufu lal ba ci ñoom nga wékku am na ñoo xam ne nii bala ñoo génn di dem kombëri làmp lu nekk dañ ko takk bitel bu ne dañ ko laal dem ca buntu ba ji fii jaafaa rëdd fii gi mbokk loolee seytaane di leen ciy sonal rek ah ab julit bay génn sa kër bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah moo tax gaa yi gis ngeen lu manqué ci lii bismillah maa ngi génne ci turu yàlla tawakkaltu ala allah maa ngi wekk samay mbir ci yàlla la hawla wala quwwata illa billah kenn amul pexe kattan ku dul yàlla lii boo ko gëmee ndax am na leneen lu léegi am nañ suñu góor gu ñu nekkal fii ci jàkka ji alhamdulilah yàlla jubal ko ci sunna mais nee na ma amoon naan ndomba goo xam ne su ma masaan xëy dem ba sama service lamb fàtte ko damay jël oto ñëw tëkkaat ko doog a xëy yaa ngi dégg de xoolal xoolal loolu mbokk julit loolee ñu bàyyi ci xel bu baax kon wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun borom bi nag daal di dellu siwaat ci julit ñi nee waay buñ leen waxee yaatalante leen na ngeen yaatalante ca loolu jataayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yaatuwul woon da doon ca këram ga la da doon ca jàkkaam ja la yaatalante leen yaata yàlla yaatal leen mbokk alquran dañ naan day nekk bi umumi lafz laa bi xusuusi sabab loolu yàlla wax yaatalal leen yàlla yaatal leen yaatalal leen ci kër gi yàlla yaatal leen yépp koo xam ne am nga koo mën a dëkkal mi ngi noonu sa oto bi yaatal ci sa mbokku julit yàlla yaatal la et yow soxna si wujj bi doog a ñëw yaatal ko yàlla yaatal la et yow collègue de service ñii doog a ñëw yaatalal leen yàlla yaatalal la amul kenn koy yaatal ci lenn ci mbiru àdduna lu dul yàlla subhanahu wa taala yaatalal la mi ngi noonu gannaaw ba itamit buñ leen waxee jóg leen te loolu mi ngi nekkoon sabab ba yonent bi alayhi salatu wasalaam dafay nekk ci jàkka bi di xutba moo am ay mag ci ñi fekke woon badr te ñooñu mbokk ñetti téeméer lañu woon ñoo fekke woon badr bu doon tey ñooy officier supérieur de l'armée islamique am ay mag yu ñoo fekke woon badr taxaw ci naaj bi yonent bi alayhi salaam ne ay jeune may leen seen bàyyee ñu ñëw dugg si bi ñu jógee naafiq yu commencé nga def ne li maaluta la ah ñoo toog seen kër yi ba fii ñu leen ila axiri suñu borom mu ne déedéet buñ leen waxee jóg leen jóg leen donte ne islam du may kenn mu ñëw naan ko jógal ma toog waaye jataay bu nekk kilifa jataay ba doon kilifa ga jiite jàkka ja ka jiite kër ga ka jiite lu mu mën a doon am na droit moom ña nga xam ne ay kilifa yu mag lañu suñu ñëwee mu jox leen cër am ñum yëkkati ngiree ñooñu toog te it ñooñu dañuy xam ne ñii li tax ñu jox leen cër du ngir seeni darajay alal wala seen darajay juddu waaye cër bi ñu yeyoo ci l'islam moo tax ñu jox leen ko kon bu ñu leen waxee jóg leen jóg leen suñu borom yàlla nag ne ñi nga xam ne dañoo am xam-xam ca mbokk lu lan mooy xam-xam xam-xam du loo wattu lu bëri xam-xam di bibliothèque bu dem gauche ba droite xam-xam mooy kay jëfal mu xam yéen ñi xam ne yàlla digle lii ngeen di ko jëfe yàlla dana leen yëkkati ci ay daraja loolee kon ñu bàyyi ko xel bu baax jëfe ndigalu yàlla yëkkati rek la lay def su ko defee ndaw loolu ñu ne jógal mu daal di jóg ay darajaam rek moo ca yokkoo ca yàlla nga mel ne ki nga xam ne dafa bale ay darajaam moo ca yokkoo ca yàlla kon borom boobu nag subhanahu wa taala loolu la wax ne suñu borom yàlla xam leen ni mooy ki ñàkk kumpa ci mboolem loo xam ne jaam yi dañ koy def te loolu it mbokk di ko bàyyi xel mooy grade bi gën a kawe ci diine mooy al ihsan juri day bàyyi xel ni fu ma mën a nekk ku ma mën a nekkal lépp lu may wax lépp lu may jëf lépp lu may xalaat sama borom yàlla dara ump ko ci mi ngi may gis mi ngi may dégg te lépp dana ma ko xisaab imma la ca yeyoo pay ci àdduna dana ma ko jox la ca yeyoo pay ci àllaaxira dana ma ko dencal lii mooy al ihsan di grade bi gën a kawe ci diine ñu ngi ñaan borom boobu nga xam ne mooy as-sami al basir al xabir yal nañuy wërsëgal lépp lu ñuy nekkee fekk ngërëmam la yal nañu jéggal suñuy rëcc rëcc yëkkatal ñu suñuy daraja xamal ñu suñu diine wërsëgal ñu jëfe ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in